a ah a yi xale bi ñëwaat na ki mën làmb te saf amateur yi saa tëggee ñu kontaan moo ñu woo le 20 mars arène national grand combat bi war dox ci diggante Gora Sox ak Fils de Balla première édition drapeau bi ju ngoone borom confrontation waaye jamaykee yemu fa ndax combat spécial bi war a dox ci diggante Ronaldinho ak Kaw Gourdin combat boobu la ñu jël nag daal di koy tuddee soxna Aïda mu Serigne Saliou bés boobu ba tey wulli wulli wat du xam ngeen ko dina fa jàkkaarloo ak Calcio jeex jàmm su lay gaynde combat boobu nag la ñu jagleel les femmes reporters de la lutte waaye nag wéetul ci bés bi benn yoon mi ngi ci ànd ak Kayor immobilier huile Jador jamaïcain ak waa Jampro ñi dañuy sargal jigéen le 20 mars moo tax ñu ne dugg mi nag dinañ ko yombal supporter 2500 francs amateur 5000 francs loge 10 000 francs kon mbokk yi rendez-vous le 20 mars ak Jampro arène national kenn du fa aca mbokk yi suivre Lutte TV point com ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare ñoo ngi fi Medina sa fi nu mu Pour la Vasse angle 39 am na rue lan. rue 39 angle 30. am na leen lu ci topp de loo daan wax. angle gumba angle gumba ah, petit promoteur nga war a def sa deuxième journée mois de mai taxawal benn combat war a taxawal léegi benn combat ñaari mbir ñu ngi ne toog Mbaye Tine Junior ak ki nga xamante ne moom mooy Boy Yeumbeul Boy Yeumbeul moom miin nga ko bu jógee Yeumbeul yëpp dañu jóg Mbaye Tine Junior ñu gis mobilisation bi nga xamante ne moom la def combat bi passé digganteem ak Dab Daan ñàkkoon ko combat yërmande nag nga tëgg waaw nga demee Iba Mar tëgg fa journée bu am am solo amateur yëpp wuy si la maa ngi bu baax a baax di la ziar wala yéen maa lay fi ginnaaw maa ngi sant yàlla di sant sama ñaari waa ji sant Sénégal tey lépp benn la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que ñun ay xel la doo nekk si làmb di liggéey làmb tey bu ñu liggéey lu liggéey si làmb sant daal parce que tey bu ñu liggéey tuuti ci làmb rek tey làmb am lu ñu jox am gét bu ñu làmb jox nañ sant yàlla parce bi ñu yàggul mais ñoo ngi wane suñu preuve te incha allah gëm nañ ne fi ñu jëm mois de mai ku ñëw Iba Mar Diop kay teg arène nationale laa na yërëm la mel. léegi Petit dafa mel dafa commencé am ay objectif ci làmb bëgg a des ci làmb moo tax combat bi jeex rek nga ne dina def la ci ko jiitu am na combat kii ak euh, Coly Faye numéro 2 dégg woon nga ak ñoom ci kase wala jubóo nga ak ñoom ci kase waa Pam Ndoye Coly Faye moom doxoon naa ko ba mu sotti boo wax ak ñoom ñaar ñëpp ba war ba war def finalisation mais justement rek sama biir staff tamit da liggéey ak ñoom ma wax ñoom ci ay wax ñu am lu ma wax ma amul man wax ñoom daal ci ñoom la dese parce que gënoon nañ xaalis bu teg ci sama staff la dese woon quoi parce que tamit nit booy liggéey loo métti métti même bu fekkee sa alal yaa ko moom sax mais déggoo nga daal instant bi déggoo nga déggoo naa ak ñoom mën naa taxaw à tout moment sama staff laay déglu nii suba suba rek mënoon woo ñu taxawal combat bi mais naa ak ñoom te pare tamit surtout bu war a bëre petit production muy combat yoo xam ne ay combat yu xam nga ñun événementiel Lamine. Siteu bu Ngor jox nga ko avance. jox nañ ko avance. am nga accord am wala jox nga ko avance. am na accord avance moom du bëreel kenn ku man képp ku ko jéem ma teg tamit coow ngay ni ci réew mi rek. parce que nag ñun moom du yoon wa nu ko waxee ñun xam ñun ay ay ay rab lañu sunu sunu li ñuy daw daa bëri sunu vitesse promoteur atanu ko moom tamit nan gëm yàlla rek xam ne yàlla mooy dogal ñooy woo ñëpp ci diggante mbaytin ak ki nga xam ne mooy mbaytin ak boo yëmbal muy lambu ñax parce que boo yëmbal sama première journée ci lamb moo ko téye moo tax ma delloo waat ko njugal jël ko indi ko bu diggante ak mbaytin mbaytin ma jàppale ku ci mel ni pour la base gi ma nekk mooy sponsor Magu 3STV Galzo sama xarit Touba Fallou moom damay jàppale Touba may jàppale ba tey bàyyiwul comprendre nga di jiwoog PDG Omar Sow di xam ne lamb ja lambam la moom du ma a tay ci moom bi yoon lu ma ko wax def Lamine waaw ah, doo tuddee la grand combat comme dama ko waaye nag man nag yoruma millions yi may joxe yoruma. non bu loo xam million Omar Sow damay joxe ay millions mais sama xarit. waaw man damay tuddee drapeau damay tuddee drapeau loolu du problème mais. Omar Sow la jàppale na ñun ku la ku jàppale promoteur rek dañuy ñaan nga am nga am ndax promoteur yëpp lañ bëgg ñu yokk waaye a xew am nga benn am nga benn combat muy Mbaye Tine Junior ak booy yëmbal juboo nga ak xeeru ngor Pape Ndoye ak kii mën naa mu taxaw suba amateur yi kon dëggal ma la tey ji guddi rek mën na mu taxaw mën nañu woo leen jox leen parce nit booy def sa xel bu dalee mën nga loolu ci rëkk bi te fi noonu am nañ yaakaar yaakin bu baax a baax li bëgg si làmb neen ko def suñu yéene ci làmb tey te bu ñu foofu tamit bu lan demee korité ñoo nga jëm Bambey ah, maa nga jëm Bambey lan demee korité parce xale yi doon maanaam xale boo daanoo boo daanoo mu daw la bu yàlla bu la yàlla wuusee rek mu ñëwaat da nga koo nangu ci man instant bi warkat international la kaay wayal ma fa kulli mata singi naat ma faali ko naat way naa la naan naan ngay mësa doon mbokkum yaay laay la lii na doomi kër mi yaa ngi ci yow sa yaay nee na baax nga sa baay nee na baax nga lii ñuy way yaaka moom suñu promoteur bi wóolu naa wóolu naa yàllaay bërëm jaam ñi buri buri dama laa wóolu buri buri laa doyloo petit promoteur lii ñuy naa doomi gar mi yaa ngi ci yow sa yaay nee na baax nga sa baay nee na baax nga naan naan nga naan naan nga bete bete nga mbokkum yaay laay tey ma way la yeelaay lii ñuy way yaa ko moome ndeysaan gaynde day ñeme jam-jam waa xam yoon waa gën das ku nekk ak pexeem waaye ba nga yori kudd ba léegi la ku looñu bu saaxoon tabaxoo ko loolu mën na yokku la lay gaañ sama waayi bàyyi ko mu dem yàlla ñu yàlla musal ci yéene gu bëti lu yéene sa moroom na doon lu baax yàlla ñu yàlla musal ci yéene gu bon a lu yéene sa moroom na doon lu baax ay sama waajaa ngi sama waajaa ngi nii waaw waaw gore di woo aca mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee ci bunt bi rek ñaari mbër yaa ngi nii Boy Yeumbeul Mbaye Tine Junior ñu war a bëre mois de mai Petit Production war a def deuxième journée ci saison bi xaaral kan laay jox mu njëkk a nuyoo kan ma mag booy yëmbal yaa ngi sa waay ku mag man kay xool naa ku mag yow moo la mag kon am. waaw ginnaaw baatu onze billahi mina seytaani rajim ginnaaw bi ñu sante yàlla di julli ci yeneen tëmb tedd bi di sant sama ñaari waajur bu wér di santaat sama ñaari waajur bu wér di sant sama sëriñ Seydi Aboubacar si yàlla na yàlla yokki leeram te taas ci barkeem di wax ne jërëjëfe Ndoye si jërëjëfe Ndoye si Ndoye si yàlla na fi yàgg te wér jërëjëfe Ndoye Sy jërëjëfe Ndoye si Ndoye si yàlla na fi yàgg tëwër ak képp ku ko wax Ndoye si sama lépp la sama sama papa la sama sëriñ la sama lépp la waaw. waaw ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi maa samay ñaari waajur waaw di sant samay ñaari waajur waaw di sant sama yaay di sant sama yaay di sant sama yaay di sant sama papa di gërëm sama papa waaw maa ngi sant ñëpp ñu may jàppale surtout waa géewaay gi ma jógee ah. waa Guédiawaye maa ngi leen sant fi ma jugee Gunaas bi may yeewoo Baxdaat ñetti mbaar guy ga ba ñàgg Kolobaan Petersen su ma jugee ñëpp jóg maa leen bu baax waaw làmb la ndax moom lamin avant tout dama ko sant ga gërëm ndax ba ma jugee sama combat bi passé ba léegi ah billaay jox nañ ma. onze mbër ñu delloo avance kon moom kon moom kon moom su ma jëlee rek man dama koy sant ga gërëm ndax champion la ndaanaan la Issa may dégg mbër kaamil non champion la mbër kaamil la borom jom la loolu koy <laughs> loolu koy jërul waa mais bu jour ba li ma kay ñaan na taxaw rek dëggal boobu ñu wuure ma ak moom barke Sëriñ Bamba waaw Lamine avant avant tout tamit di sant waa di nuyu waa yë waa yëmbal parce que tey boo nee boo yëmbal rek sa xel du dem fenn fudul yëmbal du nuyu waa yëmbal du nuy waa Gàmbi gi ma bu yàgg dara comme li mu wax rek laa koy tontu a ah. comme wax ne nee na day day sant boo yëmbal no bu ñu xoolantewul fii dinañ xoolante jour ba incha allahu rabbi comme que tey wax moo ñu fi indi kon dañuy wax avant tout tamit dañuy euh, encourager petit mi nga xam ne tey moo décroché combat bi comme ni mu ko waxee rek xëy na moom nee na seedal nañ ko ay adversaires yu bëri jëluñu avance man mii di wax ak yow tamit yaakaar naa bëri na ay combat yoo xam ne ñoo ma ko doon proposé li tax ma jël ko champion la bu doonul woon champion du ma ko jël waaye champion rasukat la nag waaye du champion bërekat ma ne ma ne man waxuma ak Lamine mbaytin laay waxal parce que bërewuma ak Lamine moom laay bëreel ma ne champion la waaye du champion bërekat champion rasukat la Lamine kii maa ko booy victoire ñu ma daan ci lam mun leen daan isa dégg xam nga Lamine kii maa ko dàq bëri fuuf isa may dégg yow yaa ngaa ñëw école ba xam nga di ma gis nga xam may contact isa may dégg man yaa ngaa ñëw école ba laa di ma gis may contact xam nga kii bu fi nekkee naan ay sampi war ay sampi war sukat ay ree la may def bu jour ba moo la gën xam maa ngi ma ba am ne prip billaahi ma jële ko fi déggoo ma de Lamine bilaay maa kii du combat. waaw léegi xam nga yéen mbër da ngeen di jël mbër ba pare ne du combat lan moo tax mu jël ma bu dul combat man de du ma jël laamu ju doonul combat man combat bu ma jël rek dama gëm ne combat yaa ngi jël boo yëmbal ne du combat lan moo dax nga jël ko léegi nala leeral loolu man. boo yëmbal bu jour ba ah. bu jour ba si kattan yàlla bor bi sifflé di nga xam ne du combat. li ma la wax rek man leen rek nga ma mën a jaay mu neex ma rasukat nga. loolu kese nga nga ma mën a jaay ci làmb wax nga léegi ne yaa ma ëpp victoire loolu xëy na yàlla moo la ko cëralee te damay ñaan yàlla suñu borom may ma ndam ci sa kaw. incha allahu rabbi làmb ja la neex maa koy def maay bëre maay xeex maay daan incha allah. Lamine si kàttanu yàlla bu jour baax kii maam buñ sumee ba dugg si biir géew bi billaay dina xam duma moromam. boo yëmbal boo yëmbal xam nga daa fa ma jege quoi loolu moo dax ma jël la barke Serigne Bamba mais bu jour baa yow yaa gën a yow gën a xam ne yow bu am ne prix ma jëlee la fi bis boo dëgalee sa bopp dama lay dóor nga daanu Issa Amady boo bëree ma daan lu leer nañu laa nag. dégg nga dóor bu daanu yow. Ah, yow sa xool sa combat moo dax ma jël yow bu ma xooluloon sa wuyu ma bu ma xooluloon say du ma ko jël. yow déggoo li ma la wax yow sa combat defoo lu dul guddeel amateur yi lool rek man man xoola ndax bëri naa benn combat boo xam ne dañoo def prolongation. yow yow boo ñëw man xam naa la Issa may dégg maa ngi bokk nañ journée sama premier combat maa ngi ko bokk Issa may dégg xam xamante nañ may dégg man mosuma dégle xam a cinq defar ci làmb. yow non jarul may wax mais cinq défaites yow teg la nga ko ci làmb booy yëmbal. booy yëmbal cinq défaites teg la nga ko ci làmb. waaw. non xama xama tey jii xama tey jii bu ñu nekkee fii di lim. ma ne wuyu ma may dégg. booy yëmbal booy yëmbal maa la palmarès. bu jour ba bu jour ba dinaa la duma daan la. man loolu ak laa lu may wax ak yow. man li ngay wax waxuma ko nit bu sosee bu sosee dara da nga ne damaa tegale cinq défaites nee ma diw ak diw moo ma daan. cinq défaites yooyu. bëri na man nee naa la ki gën a doon ndaanaan ki gën a doon ndaanaan géejawaay ñëpp xam nañ ne ci xale yi gàkku deux la te maa daan. gàkku deux moo la daan. loolu duma ci débat. gàkku deux moo la daan. xam nga nga laa ma nii. stade Ngor ngeen bëri maa ngi fóon moo la daan. wuy ma merci. nga neex rek nga ma nii. stade Ngor Ligue lañ ne lépp luy waay di wax na leer. boo yëmbal boo yëmbal wuy ma gàkku de indiwuñu indiwuñu fi saa may dégg. yaa ma fi indi mag yow la si saa may dégg. xam waxal ci moo gën ngay wax. nii yow yow laa la wax laa wax de. yow yaa gën a xam ne xolal yow mag yow du làmboo yëmbal. xam nga da wax sànq wax ju ma neex da ne yow dama la da maa xam te xamoo ma xam baca la rek. xam naa la boo yëmbal. yow yàgg naa la fekk Saalum Bantamba. merci jërëjëf jërëjëf lu wér. lu wér. xam nga yow li nga xam ci man daa ndaw man ba tey waxuma ba tey waxuma la xamoo ma de waaye lim xam ci man daa ndaw. xam na moo tax ma jël la waaye incha allahu rabi moom mi man mi nga xam ne damaa xam ci moom lépp incha allah dina xam ne leer na lépp dina leer incha allah. boo yëmbal boo yëmbal ba ah. dina la duma naal daan. loolu loolu loolu du ci débat. booy maa la doole boo yëmbal maa ngi bu ñu dem contact dis ko mbaa mënuma yëngal. <laughs> ah non dañuy xeex ñi saaf golo gi. eh Gackou 2. booy ma la ma. boo yëmbal moo fi nekk nee na moo daan ma ne ko Gackou 2 moo la daan. ah. ah. ah nee na. ah man ngay ah, man ngay man ngay loolu ma jaaxal mi ngi ni am am ñëpp di li may wax daw mi ngi noonu leer na déggoo li ma la wax waaw ma da ngay de moo daan gëmal yàlla nag ah yow boo da ngaa daanu ma tas nag rek leen xam naa de Lamine ma nekk da nga may wuyu gis nga tey ma taxaw di sos naan maa daan diw te daanu ma diw amul ma benn njëriñ amul fenn fu ma mun a yóbbu fan la ma mën a yóbbu maa daan Lamine te daanoo Lamine fan la ma mën a yóbbu Gackou 2 mi muy wax laa la wax de Serigne Babacar Sy mooy sama Serigne barki alxuraanul kari man maa ko daan te man lañ jox victoire loolu jarul ñuy nekk di débat man ak moom xamante ne te fu ma fekk wax ko loolu yàlla moo ko dogal ni day nangu nako ndogal fii ba suba laa la wax de fii ba sëtam ak samay sët booy yëmbal moo am ndam ci Gackou 2 te kii li may wax rek xam nga tey yëmbal kenn xamee ko sax muy waxee ton bi parce que man lu ma am lu ne laa la wax de. non seera comme cadre Gackou 2 bi ñu nekk di wax. man daan mbër yow yaa ma wuyu ma yow yaa. yow yaa. yow yaa am foo jugee. noo déglu ma yow yaa am foo jugee parce que yow la waa géeje waay ngemb nga bëree arène nationale supporters yi def li ñu war a def xeexoo bëree woo kenn xamul loo def dama la jox exemple. non da da ne dafa am foo jugee. waaw loolu la yàlla. déggoo li ma la wax. yaa daan sa boobu man xam naa daan man man dañ maa daan man moom. waaw incha allah sa ko sama diggante yow dinaa xeex dinaa bëre. Lamine maa ngi sant ñi may jàppale. Ahmed Aidara. nouveau maire ville de Guédiawaye maa ngi koy woo si combat mu jëndal ma ay billets yu bari Issa may dégg Aziz Alain Ndiaye maa ngi woo si combat bi Soro sama xarit sama doomu ndey Pape maa ngi koy woo ci combat bi Issa maa ngi woo may sax sant yàlla boutique di woo Ndongo Kolobaan ah Bokum Hôtel Salim xam nga Lamine kooku day sonn si man si Salim maa ngi koy woo Ousmane Neex marché joor maa ngi koy woo maa ngi sant sama doomu ndey Lac de Guiers numéro 2 ne bi nag sa combat Alioune Seye numéro 2 maa ngi lay woo si combat bi Lirou Diane Ron coach maa ngi woo suñu waa yi ñëpp Issa Mbaye ñëw jàpp si combat bi Papa Dia maa ngi lay woo si combat sama doomu ndey nga sama xarit nga maa ngi ñëw bokk benn équipe yi heure boo maa lay jàppale waa di sonn si yow maa ngi lay nga ñëw jàpp si combat bu baax a baax maa ngi sant waa Guédiawaye Gunaas ñetti mbaar Bagdad guy ga Colobane ñàgg Petersen Issa Mbaye dégg maa ngi xam maa ngi woo ñëw su ma rek damay jum maa ngi sant ñi ma àndal nag sama doomu ndey bébé Elton xam nga di gërëm Burey la Moussa xam nga xam maa ngi sant sama doomu ndey Abu bu Louga xam nga tin bu Mbassis ay ñoom Modou xam nga xam maa ngi sant ñëpp quoi ñi nga xamante ni xam nga dañuy sonn si Mbaye Tine Junior boo yëmbal di la wax wuy boo yëmbal di la wax ne la bu jour ba dina la duma naa la daan di nga xam ne Mbaye Tine Junior dafa soxla ba yàqu. waa avant tout damay damay sant ñi nga xam ne ñoom laa àndal ku ci mel ne Ozil sama doomu ndey Mool xam nga Ndiagal sama seex. ma daat bamba si xam nga di woo nag sama papa sama xarit ñu gën nga xam ci Modou benn Diop maa ngi koy woo na jënd bologu ticket yi ministre ot kooku tamit suñu ministre la te gis nañ ni mu ñuy soutenir maa ngi koy woo ci combat bi di woo Ndoye si waa Gambie maa ngi leen di woo di wax sama grand bi nekk foofu grand Mansour maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax waa diaspora bi ku ci mel ne ñoom maam Cheikh xam nga bàyyi daam lëfal laay gars yëpp maa ngi leen di woo Saliou Gueye sama grand Assane Gueye depuis Italie maa ngi leen di woo ci combat bi di woo sama sama benn rakk boo xam ne port la nekk maa ngi woo waa port ñëpp bàyyiwuma kenn xam nga di sant tamit waa yëmbal sama waa dëkk waa Kobangoy Samba Dia Fadial Wéri Ngara Bagana di sant mbëru yëmbal yëpp nag waaw mbëru yëmbal yëpp maa leen sant da di sant waa yëmbal gépp ma kenn daal maa ngi sant ñëpp. néew maa la dàq bëri fuuf waaw yaa ma dàq bëri dina leer sa bopp xam-xam ci maa la dàq munoo dara ci bëri dara munoo ko ci bëri rasu rek nga mën ci bëri bu jour ba dinaa la duma naa la daan